sant ko ci lu neex li nga xam ne mooy li am tey nga xam ne mooy li am tey dafa mujj soppeeku sant yàlla dafa mujj yàlla alhamdulilah jaama bi yàlla bu tedd bi ñu tàggoot tey jaama bi wa habibi cheikh mouhamadul mansour mamoun ñes nit ku yàlla kawel la. liggéeyal yàlla ku liggéeyal yàlla la. ku ay waajuram gërëm la. ku ay waajuram gërëm la. Cheikh Baye Mamoun mii toog ne ku ko gërëm la moom mii di magam. Zahir ak ci baatin. ngërmande ak Zahir kanamam ak ci gannaawam. ci kanamam ak ci gannaawam. kaddu yi suñ baay suñ kilifa wax Arabi. ne kaddu yi suñ baay suñu kilifa wax di Cheikh Mouhamadul Arabi. kàddu rafet na jotal na mot na sëkk. su ko defee kon ñu sant yàlla bu su ko defee kon duñ def lu dul sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. dem na jëmm ju baax dem na lool tàggoog ñun tey. amoon itte ay ambition yu rëy dem na. ku amoon ite amoon ay pas-pas amoon ambition ci lu rëy tabe lool ci jaami yàlla yi dem na tey. liggéeyal bi. ak fayda bi dem na. ku liggéeyal tariqa bi ak fayda bi dem na tey. diine lislaam. liggéeyal diine lislaam it. ku liggéeyal réewam tam dem na. ku liggéeyal réewam dem na. Cheikh Mansour liggéeyal na askan wi te yàlla dafa wax ne bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk. liggéey na politique na politique buy jëriñ askan. liggéey na. politique na politique bu set bu jëriñ askan wi yëpp. kon ci tënk. kon ci tënk. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. njabootam gi njabootak yàlla lañ. di wax ne njabootam gi njabootak yàlla lañ. yéen soosa moo ne mbindeef yi lañ ki gën ci yéen mooy ki gën njëriñ ci jëm ci jaamam yi. yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne mbindeef yi njabootak yàlla lañ te ki gën ci yéen mooy ki ëpp njëriñ. ci njabootam ak ci jin ak ci jullit ñi. yal na ko yàlla uutu ci ñun uutu ko ci uutuñu ci moom. ñu ngi ñaanal di gërëm yaayam suñu yaay Seyda Fatima Assane Deme. ñu ngi gërëm di ñaanal yaayam suñu yaay Seyda Fatima Assane Deme. di ko gërëm moom bu baax ci taxawaayam. di ko gërëm moom it bu baax. ci taxawaayam. ko ñaanal gudd fan ak wér ak mujj rafet. di ko ñaanal gudd fan ak wér ak mujj gu rafet. ak ci lépp. ak tawféex ci lépp. ak yaakaar yu ci lépp. yaakaar yu dëggu ci lépp. yu ànd ak ndololal yàlla ci àddina ak àllaaxira. yu ànd yàlla ci àddina ak ci àllaaxira. ci ci làmmiñu njaboot gi yëpp. ci làmmiñam ak làmmiñu njaboot gi yëpp. maa ngi gërëm njaboot gi yëpp. Cheikh gi yëpp ak topp yi. ci làmmiñu Cheikh Hamada Niass. ci làmmiñu Cheikh ak samay ak ay rakam yëpp. maa ne mu ngi gërëm mbooloo mi. maa ngi gërëm Cheikh Hamada ci boppam. ne mu ngi gërëm Cheikh Hamada ci boppam. taxawaayam. ci taxawaayam. Cheikh Mansour. Cheikh Mansour. àndam ak moom bu rafet. ci àndam ak moom bu rafet. te sëñ Mamoun moo ko dénkoon loolu. sëñ Mamoun moo ko dénkoon loolu. ànd bi ànd rafet. ànd bi mu ànd ak moom kii di magam di àndoo gu rafet. Cheikh Baye Mamoun ne mu ngi gërëm rakam yëpp. soxnaay Cheikh Mansour yi. soxnaay Cheikh Mansour yi. Seyda Aminta Niass. Seyda Aminta Niass. ak ki nga xam ne mooy Seyda Khady Fati. ak ki nga xam ne mooy Seyda Khady Fati. Seyda Sala. sayda Sala. Seyda Umul Fadli Haydara ca Ségou. Seyda Umul Fadli Haydara ca Ségou. ak mbooleem soxnaam yi. ñëpp maa ngi leen di nuyu. ñëpp Cheikh Baye Mamoun na mu ngi leen di nuyu. ak Seyda Adja Ami. ak Seyda Adja Ami. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm. ñoom ñëpp Cheikh Baye Mamoun na mu ngi leen di gërëm. Seyda Aminta mooy seen mag. Seyda Aminta mooy seen mag ñoom ñëpp. taxawaayam rafet na ci kër gi moom mu jiitu ci kër gi. taxawaayam rafet na ci kër gi moom mi jiitu ci kër gi. Cheikh Mansour gërëm na ko. Cheikh Mansour gërëm na ko. ñoom ñu topp ci moom. ñoom ñu topp ci moom. di xadifaati. di xadifaati. taxawaayam rafet na ci kër gi. taxawaayam rafet na ci kër gi. Cheikh Mansour gërëm na ko. Cheikh Mansour gërëm na ko. salami ci topp moom it. salami ci topp moom it. gërëm na ko. Cheikh Mansour gërëm na ko. ak ñi ci topp ñëpp. aminte yaag say rakk. kon aminte yaag say rakk. liggéeyal ngeen seen borom. liggéeyal ngeen seen borom. ci sëyu farata yàlla ak sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci sëy sëyu farata yàlla ak sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ba yàlla def tey lu ko soob ci seen borom kër. na ngeen dollee muñ. na ngeen dollee muñ. na ngeen dollee gërëm. yal na yàlla barkeel seen njaboot yaa Rabbi lépp lu ngeen fi liggéey yal na ko yàlla gërëm yaa Rabbi rëcc yàlla war koo jéggale yàlla nañu ko yàlla jégal jégal bépp rëcc rëcc bu doomu aadama war a am yàlla war koo jéggale yàlla na leen ko yàlla jéggal te jéggal ñu ko it ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla kattanal yaara bi papa Sidi Arab wax na ko sànq ay bàyyi la fi bàyyi kon kon kenn la ci ñooñu moom la yàlla def ci kanami njaboot gi fas na ay ne uutu ko ci kantani yàlla te jàppale bu baax njaboot gi. fas na yéene joxante ak yooyu loxo ak njaboot gi jàppalante ñoom. charia al dafa waral ci yéen soxna yi ngeen tënji. ñeenti weer ak fukki fan. tënji boo xam ne du ànd ak waxaale sëy. gaaral sax ay baatu gaaral waru waru cee am. hatta ay baati gaaruwaale sax waru cee am. gaaral gaaruwaale rek. gaaral mooy keneen ku war a sëy. ñëw di dox ngoro ci yow loolu dañ ko ci. di sànni ay gaarali baat sax loolu dañ ko tere ci téen ji yal na leen ci yàlla kàttanal. mboolem aada yi sawiñ ciy teg nag amut ci ay sarax yi ñetti fan sarax yi ñeent fukki guddi di lang fii pay bi àndut ci te pay yonent pay bi mooy suna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran su ko defee ngeen góorgóorlu di ko saraxeel lu tolloog li mu daan lekk ba suur ci ay jamono rek am na ñeneen ñoo xam ne gërëm nañ leen ñi nga xam ne def nañ fi lu baax bala ñuy tëj jotaay bi rakam di alaaji Ousmane Faty jox na ko ndigal dana liir tur su ko defee. Ousmane Fati Cheikh Ousmane Fati ñu ne nga yegg si su ko defee Cheikh Baye Mamoun ne kàddu yooyu la fas yéene woon a jotal ki nga xam ne nag mooy taawi Cheikh Mansour muy sëriñ Serigne Mamoun Mansour Niass tey mooy mage xale yi ci kër gi sëriñ bi ne dafa bëgg nga góorgóorlu. sa papa na nga dollee góorgóorlu naam doom ju baax nga ya bi na nga gën a góorlu na nga gën a góorgóorlu jàng loolu la sa papa bëgg ne loolu la bëgg ci yow yokk sa ite ci njàng mi yokk sa njub yal na ko yàlla def yow ak sa rakk yu góor yeeg yu jigéen yi yëpp seen papa ne loolu la leen di wax mboolem doom yi tey yaay seen kilifa mboolem soxna yi tey yaay seen kilifa ne moom jàmbu xeebu bii te sëkk fa yàlla yal na yàlla moom la yàlla def ci seen kanam moom sëñ Maamun bi ñuy hindi baayam ci yoon yi wàcc na jooy ñëw jaayanteeg baayam kii di baay Maamun ne ko maa ngi jaayante ak yow mu ne ko maa ngi lay nangul jaayante gi mu ne ko nangul naa ko njaboot gi xale yi tamit topp leen seen gannaaw mag te déggal ko ngeen nekk benn balaa ngeen di def dara ngeen diisoo lépp lu fi seen baay baay dana diisoo papa siidi ak njaboot gi su ko defee ñu wax ak sëriñ bi ñu teel a kenn ku nekk. luy sa nga jot ko ci jàmm ak salaam lépp loo xam ne moom la fi bàyyi ci kayit bu ko kenn laal luñ bind lépp papa siidi ak ñi ci war a seede danañ seede ak Hamada Cheikh Hamada su ko defee ñu xam lim bàyyi ci téere ki bagaas loolu ne mu ngi koy leeral bu baax lépp lu mu bàyyi itam ci carnage danañ ko takk xam lan la daawut ko nëbbu daawut mag nëbbu magam dara magami daaw ko nëbbu moom baaba xam na ci dara dañ daan jokkalante ay asraar waaye danañ note lépp mu am seede ñu def ko ci gafaka ñu deñc ko ku ci màgg bu yelloo ñu jox la liñ la war a jox bu soobee yàlla nañ fexe néeg bu nekk ci ñim takkoon ñu photocopie la boo màggee li ci yoon ñu jox la copie yooyu incha allahu taala sëriñ bi ne mu ngi gërëm ñëpp mu ngi sant ñëpp